mbokk yi am nañu mbégte ñoo ak yéen si vidéo bi ah, leen indi image yi nga xamante ne rek moom mooy wane liggéey xarañte bi nga xamante ne loolu la gendarmerie bu Sénégal def ba tax na ak ah, am nañu mbégte aussi ñun si ah, liggéey boobu nga xamante ne takk der yi def nañ ko image yi ngeen di gis ne mooy image yi nga xamante ne yooyu la gendarmerie teg loxo ci liggéey bi nga xamante ne def nañ ko ci biir Dakar mais surtout rawatina côté Dakar an mooy fi nga xamante ne foofu lañu ñu jàpp ay. Euh, def kat defkat ñaawteef surtout ñi jaaroon fi nga xamante ne moom mooy teer bi daal di dagg li nga xamante ne moom mooy euh, câble yi li ba tax na rek gendarmerie tey euh, jot nañu jaajëfoon leen si liggéey boobu bi nga xamante ne moom la ñuy eh, doxal waaye tamit eh, di ñaawlu liggéey bi nga xamante ne aussi eh, sa boo yooyu def nañ ko si wallu parce que terre bi tey soo xoolee mu nekk li nga xamante ne mooy jumtuwaay bu ñëpp mun a utiliser pour voyager nekkul ne pouvoir la wala opposition mais li nga xamante ne ñëpp ñoo ci war a njëriñoo comme mel na ni ndaal la ki naan jox sa morom mu naan ba tax na ñëpp ñu ngi ñaawlu liggéey bi nga xamante ne samba boo yooyu def nañ ko waaye tamit di rafetlu liggéey bi nga xamante ne gendarmerie bu Sénégal ah, def na ko ba tax na rek ah, ñu ngi leen di ñaan ñoom tamit ñu gëna a liggéey bi nga xamante ne moom la ñuy def mooy maanaam sécurisation ñi wéyal di dugg si gox goxaat yi ah, di génne li nga xamante ne moom mooy Euh, Samba Boy yi nga xamante ne ñoom ñooy nekk surtout ñi wër Dakar waa ak yeneen ville euh, di def ay ñaawteef muy cambriolage muy euh, braquage wala ay ak li ñu mel ñu ngi ñaan en tout cas nguur gi aussi mu gën a jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk si liggéey boobule ñi gën ñoŋal li nga xamante moom mooy kaaraange askan wi dëkk bu amul kaaraange dafa mel ni dëkk boobu euh, dara doxatu fa ba tax na ñu ngi ñaan ñëpp di leen di jaajëfal si teewlu bi nga xamante ne moom ngeen teewlu seen vidéo bi.